jox nañu ndigal ci Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ñoo ngi koy ñaan mu yàgg fi loolu tànn ak wér ak kan nag Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ba Fall jàmbat yàlla fi yàgg tànn ak wér ak Serigne Abdou Rokhaya Fall xalifa Serigne Mortala Fall waaye rakkam jëm Serigne Abdourahmane Fall fu ñu koy defee stade Demba Diop le premier mai cant nag maam Cheikh Ba Fall ñi ci woon ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp bàyyiwuñu kenn. mu jox imam Babacar nag. Serigne Cheikh Khadim Fall mi ngi woo njabootu Cheikh Al Khadim gi mi ngi ci woo Serigne Sidi Mbacke ak mboolem njabootu Serigne Abdou Lahad gi Serigne Dame ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahim Serigne Ahmadul Mokhtar ak mboolem waa Darou Khoudoss ak mboolem njabootu Serigne Saliou gi Serigne Cheikh ak mboolem njabootu Cheikh Abou Madiane Chouaibou gi Serigne Abou Baraka ak mboolem njabootu Serigne Fallou gi Serigne Mamor Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Mamadou Moutada gi Serigne Modou Habib Mbacke ak mboolem njabu Sëriñ Abdoulahi Mbacke gi ngi ci beneen ñaan koo xamante ne da koy jëmale ci jàmbari Serigne Touba ji nga xam moo fi jóge barki démb Serigne Cheikh Mbacke Daaru Rahman mi koy yëgal Serigne Cheikh Mbacke xalifatu Cheikh Abdoul Qadir waaye di ci beral woote ki nga xamante ni bii moo di Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Qadir Serigne Moussa Mbacke xalifatu Cheikh Mamadou Lamine Bara ibnu ak waa guñ mbind gépp di ko yëgal soxna ma Bousso Serigne Abdou Samad Mbacké ibnu Serigne Touba mi ngi koy yëgal njabootu Cheikh Al Khadim gi tàmbalee ko soxna Fat Dia ba ci soxna Maymoutou Soukhra ak mboolem koo xamante ni bii yaa ngi askanoo ci Mbacké ak ci Mbusoobe mi ngi koy yëgal Serigne Abbas Mbacké xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti Serigne Mor Fati Mbacké xalifatu Daaru Salaam Serigne Moussa Mbacké xalifatu Cheikh Massamba ak mboolem njaboot ga Serigne Abdoulahi Mbacké buur ak mboolem njabootu Mamor Diarra gi Serigne Balla Coro ak mboolem njabootu Serigne Cheikh Thioro gépp njabootu Serigne Afé Mbacké njabootu Serigne Cheikh ko yëgal waa Mbusoo bi gépp sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall ak njabootuk sëriñ Modou Mbenda gépp sëriñ Bassirou Fall alquran ak mboolem njaboot sëriñ Mbacke Fall gi sëriñ Amdi Khadi Fall ak mboolem njaboot sëriñ Assane Fall gi sëriñ Cheikh Ngunda Fall ak mboolem njaboot sëriñ Ngunda Fall gi sëriñ Cheikh Mbawar Fall ak mboolem njaboot sëriñ Aliou Fall gépp sëriñ Talla Fall ak mboolem njaboot sëriñ Ablaye Fall Ndar gi sëriñ Fallou ak mboolem njaboot sëriñ Abdou Xaadim Njaay waaye ci njaaw njaga fatim taala sala ñang mbuur ngañ caam lugo daam deer ndar aliou diop dakar sëñ am Njaay ci Parcelles Assainies si kaab ibrahima Njaay caaroy moustapha diouf abdou aziz Njaay pikin ibrahima Gueye ak Xaadim Jeng waaye ñoo ngi fas ci wàllu communication Masek Gassama ak amadou nicolas ñu france foofu dinaa fi taxaw ajaratu ñaayu turé mi nga xam ne bis lépp mooma ñu ngi koy fàttali ko baaxte di ko ñaanal Suède Italie Milan ak Lecce ak Parme ak Singoña Dovera Catania Cagliari Sarsari ba Canino Italie yëpp sax bàyyi fi ak bitim réew sax nag Espagne Bilbao Madrid Malaga Palma de Mallorca ba Ibiza Angleterre Brésil Argentine Nouakchott Serigne Cheikh Khadim Fall bi son bi dellusi ni ci fàttaliku ak sant ak ñaan Cheikh Ibrahima Fall ñaanal Cheikh mu ci woo nag mbooleem ku di ab jullit te nekk ci àdduna sëriñ bi nee na mi ngi ci woo sëriñ Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoulaye Mbàkke sëriñ Abdou Latif Mbàkke moom sëriñ Murtada Mbàkke sëriñ Cheikh Awa Balla moom sëriñ Moussa Basiru sëriñ Galas Kaltoum sëriñ Saari bu Mbàkke moom sëriñ Moodu moom sëriñ Abdu Xaadir waaye mi ngi woo seex yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ Touba li tàmbalee ci sëñ Adama Gueye ba ci sëñ Madiba Silla di woo waa kër sëñ Daam Abdourahmane Lo waa kër Cheikh Issa Dieng waa kër Cheikh Ibra Sarr Njaañ bàyyiwul kenn cheikh yi aju ci kër cheikh Ibra Fall it mu ngi woo ñëpp su xëyee dana dem ci stade ba ñu xëy ci jàng alquran salaatu ala nabi durus ci xasida yi ba waxtu ba ñaari waxtu jot ñu xéewlu foofu ci stade ba ba takkusaan ñu def fa plateau boo xam ne dañuy waxtaan ci dunduk Cheikh Ibra Fall fàttaliku ko teer jot ñu dugg ci saal bi def kuréelu xasida su jàllee nag ñu def cérémonie officielle bi jeexee ñu tudd baatu laa ilaha illallah ba samaan set sant la daal jëm ci Cheikh Ibra ak mag ñi fi nekkoon ñëpp bëgg na nag mu doon cant boo xam ne suñu borom bëggee nu sante ni nanan ko ne sante suñu borom jox ko ca loo xam ne dana ko bokk jul yi ci àdduna yëpp jërë ngeen jëf bis bu màgg bi ñëwati na premier mai ñuy wax ci turu jàmbaari Thiès gi di alaaji Papa Ndaw nga xam ni mooy taalibe bu sëñ Cheikh Khadim représenté ko ca Thiès Papa Ndaw mi ngi woo waa Thiès gépp bàyyiwuñ kenn waaye nee na Cité Senghor mi ngi leen di njëkk woo Grand Thiès Daaru Salaam Cité Lamine Madina Fall Kawsara ba kër Cheikh ba Tiwaawoon bu kenn des li sëriñ mu wax rek ku ci feeñ dootoo fayati ba faw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu damay wax rek lanu suñu sang bu baax boo xool dafa nañu le première mais ñiy liggéey ci àdduna bi yëpp dañuy def seen référendum di maanaam xeex seeni droit ngir ñu yokkal leen seen i salaire ngir ñu avancer loolu fa ñuy liggéey waaye moom mu ni le premier mais bésub liggéeyukaay la da koo jagleel maamam ju tedd ja le première mais ci stade bi Diop muy bës bu ñuy fay liggéeykat yi te ku gon ku xeel sëñ Touba gontal maam Cheikh Ibrahima Fall